ku ne bu taxawee baax fexe ne day baaxal lépp ay baax yal nañu yàlla baaxal euh, citoyen bi sénégalais bi na nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala ci coobareem indi na changement indi changement coow bari woon na réeroo bari woon na fitna bari woon na dox ñaxtu bari woon na borom beeg coobareem ak yërmandem mu soppi lépp deret tuuruwul coono amul benn problème amul borom bi subhanahu wa ñu ko loolu mun nañu woon ne borom boobu borom bu xereñ la te am yërmande la changé loolu mooy peuple kon peuple est souverain kon peuple na bàyyi xel ci changement bi mu bëgg ban la naka la ko bëggee fan la ko bëggee num koy defee ci yar teggiin maandu jub jubal jox ku nekk àqam sàng sutura sori lu ñaaw sori jalgati sori lépp kon nii mooy changement bi nga xam ne borom bi tabaraka wa bëgg na ko changement yooyu ñuy wax nag fokk am na jéego yoo xam ne buñ ci jaaree xej na ñu yegg ci premier jéego mabda ul xiwaar mabda al xiwaar mooy nañu waxtaan wa amruhum shura baynahum mu ne seen mbir kay yéen a ko bopp nañu waxtaan wa shawirhum fil amr na nga leen concerté kon concertation boo xam ne nag concertation lañu ñu wax waxuñu am leneen lu dëxañu ci biir concertation boo xam ne bu mat la bu maandu la bu yemale la boo xam ne lañ ca jublu mooy defar muy jubbanti muy mottuli kon loolu mooy màndargaak peuple bu ñor peuple bu am conscient peuple boo xam ne day bàyyi xel peuple boo xam ne day bëgg a loo xam ne ba àdduna tukki dañ koy li di ko wax te jàpp nañ ne peuple sénégalaise jaar nañu ci